yàlla ak dal leen ak jàmm ci xibaax yi nag dañ koy doxee ba tey mbirum Ousmane Sonko doon tàyyi benn yoon di ci wax ak candidature am bi nga xam si nag rejeté nañ ko jox ki xam moo di Bassirou Diomaye fay ak Cheikh Tidiane yi ñu dem ci élection yi ñëpp rek am yaakaar nag ci candidature li nga xam li nga xam si ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye kon nag xam ngeen ne bu baax a baax gars yi di ko publier na Sonko mooy Diomaye Bassirou tamit mooy Sonko Diomaye Sonko Sonkoy Diomaye loolu nag ba tax na kon xel yëpp rek daal di dal ci élection yi xam na moom mi nga xam moo Sonko nag élection yi naam candidature demul mais candidat bi xam si nag moom looy dem mooy candidat bu ki nga xam ne fay rek dina dem te dina. gagné élection yi Sénégal yëpp rek am nañ ci yaakaar bu baax a baax te xam nañ ne euh, bu demee ci élection yi nag midi mën na noo ci bureau yëpp xam ne Diomaye daal gagné na li nga xamoo di élection yi incha allah.